والبر عدا الذي خلقنا حميدا وفرا من خلقه دائما جماعة الوفرة شيخ حميدا وفرا

salaamaaleykum sunu mbokki site internet yu suivre BP Actu tey dañu ñëw fi Médina seet si waa Touba rue 13 mu doon kuréel gu mag te ñu organisé woon 18 safar ñu ngi taxaw ak seen porte parole papa ñu ngi leen nii ah maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu gis euh, initiative bi naaj torop ku nekk di def safar mais boo ñëwee fi Medina ñoom ñu ngi ci tey ñu tey doon laaj initiative bi lu ko waral. ah lii xew nag ba toll nii mu toll ba muy tàmbali tollu woon nii du nag ñun mag ñi ñoo ko sos ñun mag ñi ñun mag ñi sosuñu ko gone yi ñoo ko sos. kii taxaw di président bi ak ku ñuy wax Umar Fall ñoom ñaar nii mën naa ni mbir yëpp ci ñoom la jóge ba ñu koy def daal maanaam ñu ngi toll woon ci ñetti ginaar bi ñu ko jëkkee def ñu dem ba ñu ray nag ak juróom fukki ginaar bu ma juumul ren yii xaw ma ñaata ginaara amagul ndax ma ca waañ wa waaye moom gis naa ñetti nag yu ñu rey te nag li ma ci gën a jaaxal mooy moom mi di président bi ak Amar Fall ak xale yi gisuma ñu taxaw fenn laaj ndimbal walla ñu yor mbàtt di walla dara lu fi sotti itam nun mag ñi dañuy xëy rek gis ni lii sotti na te ñun ñoo leen war a ne giide mais ñoom ñoonu giide ñu di leen ñaanal yàlla ak yonent bi ci barkeb sëriñ Touba yàlla may leen wér yëf yi gën a jëm kanam ñun ñi seeni baay ñu yàgg leen a safar nag li ko waral xam nga lan la kon nu ngi wane ni nun fa nu jëm di Touba nu tàmbalee lii kon fa nu jëm ñime ko ku jëm ci béréb di fa fekki sab sëriñ boo manqué paas doo man lii dañ leen di wan ni leen nag nun ginnaaw yàlla ak yonent bi sëriñ Touba ak sunu doom yii jiite mën nañu lépp ci dogalub yàlla kii sunu dara itam fa nu jëm ndax ku manqué dara fa nga jëm doo man lii te yegg ko fa ah fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ku ne xam na li Serigne Touba wax préparation bi nag ci nekk nii fii mu ne nag du fii rek dëkk bi yëpp a ngi riir Sénégal yëpp a ngi riir France itam Amérique Canada boo demoon tey Montréal li xew fii moo fay xew Serigne Touba nag am lu mu waxan ak nun loo xam ni am na lu mu nu ciy jota woon dañu yàlla may na ma àdduna ak àllaaxira donc kon yëggaguñu àllaaxira xamuñu la fa xew mais fii na ci àdduna ku gis lii xam ni ku man lii ci àdduna man nga lu raw lii ci àllaaxira kon président ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla yaag Omar Fall bu baax a baax baax nun ñii seeni baay day ñemeloo ngeen nu dalal ngeen sunum xel bu doon nun ak nun rek yëf yi du mel nii waaye sa coono sa ñàkki nelaw sa farlu sa poos sa lépp ak sa disponibilité ñu ngi lay ñaanal yàlla yaa ngi ko seqal yàlla jàppale leen kii ci sama ginnaaw itam baayam ma xeet mbeng yàlla na yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa dogal mu xippee ji àjjana suufu Tuubaa sañ ko denc yàlla na woyof tooy ci kawam moom bii nag baayam lu ne la daan def ci lii kon moo ki rakka ak ki magam ak i doy baayam bu ñu taxawee taxawaay bu raw ba baay daan taxaw ñoom itam dañu leen di ñaanal yàlla mbeñ taxawaay bu sa baay amoon yàlla na nga am bu ko raw di gërëm jigéen ñi ci waañ wi ngeya ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen ñi nekk ci waañ wi maane koto jërë ngeen jëf yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ñàkk ngeen ci seen alal ñëw ci ak seen doole te laaju leen kenn dara. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyoo seen tur ak seen di leen ñaanal yàlla ñu koy teewee déwén yu baree baree bare ndax sëñ Touba moom tànk kanam la am amul tànk ginnaaw ndax lii ba muy door tuuti la wan nun daaw ba nu koy def ñetti ñaari mën a lañ togg ceeb genn mën a euh, laax ren ñu ngi ko fas def fukki mën a ak juróom. ak juróom-benni banaay laax dégg nga ñu ngi sant nag yàlla bu baax bi sant Mor Fall mi nga xam ne sama doom bu góor la boo xam ne taxaw na taxawaay bu rafet ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla te naa seriñ jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba ndax Serigne Touba lii lépp moo ko waral. yëf yi ci ñun la sax roga bisimilahi rahmaani rahim barke Serigne Saliou barke seriñ Saliou Serigne Saliou Mbacke yàlla yàlla yokk ay leeram te barjaq mboolem njaboot Serigne Touba yëpp sama doom moo ko commencé woon ak sama yaay ñu def kafe séddale ko fii te déwén sa yàlla dogal li muy dogal moom wuy ji boromam ñoom ñu ni comme que mère Fall moo ko commencé woon dañ koy saxal bu soobee yàlla incha allah keroog bañ ko waxee fii keroog rey nañ fii ñeenti xar defar juróom-ñetti mana ñu commencé ko ca déwén sa ñu ñëwaat muy daaw ñu ñu ñu ñu def ñaari nag ak ay ginaar cinquante ginaar ren ñu ngi ci ñett nag. ak ak ñaar fukki mën a ak ñett kon nag xam nga ni kon sëñ Touba moom tànki kanam rek la am amul tànki ginnaaw. la ñuy bëggee sëñ Touba lañ bëgg suñu xol sëñ Mountakha Mbacké ma waxoon sëñ Touba nañ ak ñaan gu ndangol ndab lu day tuur baak sëñ Fall Mbacké suñu xol sedd na guy baak sëñ Fall baak sëñ Sall sëñ Mountakha yàlla fi yàgg te wér. ñu ngi taxaw ak Tafa Mbengue moom actionnaire la ci biir affaire yi Tafa Mbengue ñu ngi lay nuyu. waaw nee na ñu ngi lay fay di leen gërëm di leen sant wax dëgg fa di nuyu mbooloo mi fi teew nii yëpp waaw di leen sargal yéen tamit yen ñi nga xamante ne tey ji ba ngeen déggee lii rek la ngeen jàppoon na ngeen ko bàyyi daw ñoo gën a si ñu nuyu bu baa a baax di nuyu mboolem ko fi teew waaw safar moom li ma ci mën a wax bari na ndax wax dëgg fa yàlla dama ko fekkee démb ak tey di ñaan yàlla fekkee koy at yu baree baree baree bare boo seetloo lii nii ñun tey yéem nañu parce que ñun bu ñuy soog a door dañu nekkoon juróom wala juróom benn personne ñu toog waxtaan dañoo bëgg a safar dañoo bëgg a boobu ñu ngi am euh, ñaari xar ak cinquante mille francs wax dëgg fa yàlla moom lañ tàmbalee benn mën a ceeb lañ ci amoon séddale ko waa koñ bi toog jàppaat suñu ñàmbur waxtaan ci ne bu déwénee wax dëgg fa yàlla war nañ góorgóorlu ba def lu ëpp lii at bi ci topp nag yàlla dimbali suturaal ñu bañ am ci ñaari nag am ci 40 ginaar affaire bi tam réyoon ba jaaxal ñu tamit bañ yaakaar ne sax ñun dootuñu defati lu raw lii li nga ren sëñ bi ñëw gënaat ñu wan wan boppam wax dëgg fa yàlla ñu am ci ñetti nag am ci 3 millions non loolu ku ne ku ne ku ne dellu na ginnaaw da ngay wax lu neex lii yombul parce que woo la ngeen baa seen yitte woo la ngeen baa seen liggéey ñëw gane suñu dékk seen i micro dékk ñu seen i dékk ñu seen i caméra wax dëgg fa yàlla amuñu seen fay waaw di ñaan yàlla yàlla mi am fay rek waaw yàlla ñu dox ba teel a topp si incha allah